ñun dañoo solu nii ku ñu xool ni ñu soloo nii maquillé wu xam ne xeexi wuñ dañoo maquillé wu ba rafet dugg suñu oto pour dem dem bay arrière suñu biir koñ lañ ne buntu koñam aane la ñu génnee dem bay arrière ba ci bopp koñ bi noonu ñoom ñuy ñëw ñu ne ñoom ñoom ñun nañu taxaw ñoom ñu jàll ñu ne leen duñu leen bàyyi ngeen jàll parce que ñun tam fi lañ dëkk dañuy dem ñoom ñu wàcc ponkal yi wàcc ñëw fekk si ñu si biir oto yi jël ay xeer dóor ay birig oto bi ku ko xool tey xam ay birig la ñu doon envoyé ñu génn ci oto bi di xeex ak ñoom kenn ki jël jël jël jaasi bi dàq ji kii kii dañ kaa rawale man kii nii lañ doon lañ doon jam jéem a jam ak ak xottu biteel bi dañ ko toj bañ ko bëggee jam xottu biteel bi man maa daw song waa ñuy xeex waa ji gaañ ma fii la ma xotti loolu la loolu man daal lool laa ci mën a wax parce que tamit dañoo sonn daal parce que dañuy waa parce que ci suba ay 11 heures lañ fa jaar xale yi di leen yuuxoo ñun ñëpp ñu leen yuuxoo génn leen koñ bi génn leen koñ ñu ne ñoo ngi ñëwaat ba ñu ñëwaatee itam xam nañ ni ñëwee parce que xam nañ ne kon jaamu duñ ko indi parce que koñ ba amuñu fa dara amuñu fa dara ay yuuxu lañ fa jëlee moo tax ba ñu ñëwaat tam ñu ànd seen ay mbër rek pour rayante ak ñun waa Malick Gakou ak cortège am Malick Gakou ak cortège am parce que ñun dañ a xam ñoo dëkk ci waay googu xam nañ leen xàmmee nañ leen ñëpp xam nañ leen